ndem xewlu mënta ñàkk gëstu bu baax a baax ñam yi nga xam ne moom la askan wi di jëfandikoo nag nekk lu ama am solo ci loolu sax ñoom ñi nga xamante ne nag ñooy kuréel gi nga xam ne ñooy saytu ñam yi nga xam ne moom la askan wi di jëfandikoo Mame Diarra Faye madame li di coordonnatrice su projet bi nga xamante ne nag ñooy saytu bu baax a baax ñam yi askan wi di jëfandikoo nag daal di amal moom moo ki ñooñam li ki tey ab ndaje nag fas yéene nag daal di amal ab dox gëstu nag daal di sàkku ci ki nga xamante ne moo di gouverneur ngir mu xaatimal leen nag li nga xamante ni moo di ab téere ngir nag fépp foo xam ne rek war nañ fa mën a taxaw ba daal di saytu bu baax a baax li askan wi di jëfandikoo rek daal di yomb ci ñoom. ñam yi ñam dafay aar ndax ñam kenn mënu si paasoo kenn mënu toog suba ba ngoon jot wala toog ñett fa ñeent fan te lekkoo boog ñam dafa nekk lu essentiel si biir. waaye ñam bi tamit bu fekkee ñam bu bon mën na la jural ay jàngoro ay musiba yenn musiba bon nag musiba yooyu du ni kat euh, réew bu nekk war na balay ay yenn musiba yi nga xam ne dafay bare di ñëw. nga am yi nga xam ne ay poñ yi nga xam ne teg nga kan nekkat lii bu amee lii lan war def kii lii la war def santé lii la war def agriculture lii la def élevage lii la war def loolu loolu nag comme que defoon nañ ko ak ñi nga xam ne ñoom ñëpp la concerné te ñu ne woon que nu xool kat maanaam entraînement la doon def pour xool nagum li ñu defoon baax na wala baaxul ci loolu sax moom mi nga xamante ni moo di Mame Diarra Faye mi ngi dikkaat ak ñun ci yenn yi nga xamante ni askan wi ñu ngi koy jëfandikoo te di leen jural loraange mu cité ci nag lu ci mel ni laax ak yeneen yi nga xamante ni nag cité wu ko ci li nga xamante ni mën na leen indi lu baax a baax ay loraange ba tey naka daal dinay dikkaat ci li nga xamante ni nii nag moom la askan wi ëpp lu ñuy def muy xew yi ñuy dem nag di def di lekk ay laax ak yu ni mel. waaw ah, looloo ay nit ñi ñëw toog lekk laax ñu toog ba ay booru 14 heures 15 heures ñu commencé leen gis ñuy am di wàccoog di kii ak yooyu ñu woowaa sapeur yi sapeur yi ñëw indi leen si structure santé bi ñoo ñu laaj leen lan la ñu lekk ñu demaat si laax bi def prélèvement dem tamit laaj leen fan la ñu jënde woon soow mi yëpp dem remonté foofu yëpp def fa ay saisie ay vérification xool soow week yëpp fan la nekkoon yëpp ñu def ay distribution boog nag tey jii ban ko ba pare xool na ne nag dafa am ay mécanisme nga xam ne dafa nekk si biir yi nga xam ni population bi am na li nga xam ne bu fekkee gis na nu dara mën nañ ko annoncé ñi nekk fi tamit Thiès bu fekkee am nañ tamit yi nga xam dafa mel ni tamit am na ñun ko war annoncé ñan ko war annoncé tamit fa nu nekk bu nu jotee tamit information yi ñoom war nañu réunion xoolkat li nga xam ne wax nañ leen ko nagum jar na ñoom ñuy intervenir wala du leen di bàyyi ñoom rek ñoom ñu toog liggéeyal ko seen bopp bon na si boobu la ñu nekkoon ba nu joxee événement bi information bi xam na ne ni ñun war na lu ñëw toog ni gouverneur bi kat mu def li nga xam ne un groupe de coordination interinstitution bi nga xam ne maanaam mbooleem structure yi nga xam ne ñoo nekk Thiès ñoo fa nekk ñi nga xam ne war na nañu àndandoo takku ku nekk sa responsable ñu taxaw ne yow lii nga war def kii lii la war def ñoom ñaan ñëpp ñoom ñëpp ñu àndandoo liggéey de manière concertée pour euh, rapidement nu réagir pour limiter kii limite risque yi. ci loolee sax mi ngi xam ne ni nag kenn ku ci ñoom rek lii sa wareef moo di malade bu ñu la indi rek nga daal di gëstu bu baax li mu lekk ñam bi mu lekk ak fan la ko lekkee ak naka la def ba jural ko yooyu lay rolaange. donc bi gën am importance daal mooy tey jii kilifa yi nañu fab un fonds d'urgence maanaam ñu fab benn xaar li nga xam du nga koy làq tekk nii nga xam ne bu yi amee rek. si saa si rek dina mën taxaw gouverneur yi nga xam ne wala ñi nga xam ne au niveau central la daanu mën am ay moyens yi nga xam ne dina leen mën permettre ñu euh, nag mooy documents yi tamit ñu defalee rek nekk officiel yi nga xam ne fépp foo dem rek daani kat lii bi nga xam ne nag moo ma mën permettre nga xam ne affaire yi bu amee nii lañ ko war liggéeyee. mu ñax sàkku tamit bu baax a baax ci ñi nga xamante ñoo di askan wi nag ngir ñu dimbale leen rek bépp ñam mënuñu ko utiliser sax yëpp ñam bu ñu gis mu leer leen ni rek mën nañ leen jural ay loraange ñu siñaaree ko ngir ñu mën cee dox ay jéego ba indi ci saafara ku ma jël micro fu ma jaar. waa ñu wax ni tamit kon fii la amee woon ñu ne gouverneur bi bu paree mu woowaat ay kiiwam yëpp naataangoom yëpp ñu xool li fi amoon li yan leçon lañ siy tiire nagum kii bi baaxoon na wala am na li nga xam ne tamit war nañ ko yokkaat ba mu gën baax rek.